ci adduna mu ne loolu la ñuy defal way juri xale biy jàng alquran wala mag mi koy jàng mu ne kon nag lu ngeen yaakaar ne moom la ñuy defal ki koy jàng moom ci boppam kon nga mbokk ci biir alquran rek tey mat naa geesu tey def mat naa jàng te mat naa foofu yàlla ci yàlla dimbali kon alquran ngu noonu mooy werdu mag wi alquran ngu noonu mooy zikr bi gën a mag ci xes zikr yi def koy fonk di ko jàng waxal naa leen aslaf ci aadaa bi njàng mi waxal naa leen ne kenn ku nekk ci dem na na tax bu ci ba aw sas wu dëppoo ak ay liggéeyam di ko jàng bis bu nekk su fekkee ne bii da nga koo mënagul demal jàng ko wutal ab ustaas sampañ mu lay jàngal alquran yéen ci yàlla dimbali bu ko defee jullit bi nag noonu moo amee werdu alquran bu muy jàng bis bu nekk noonu tam la war a amee werdu ci azkar ak daawaat yi bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy toog ak yàlla bis bu nekk di ca jaar te faw ma takraar jumla jooyu dama ne jullit bi noonu mu amee aw werd ci alquran woo xam ne bis bu ne mu jaarte ngir yàlla di ko jaamoo yàlla noonu tam la war a amee aw werd ci zikr ci ay zikr yi nga xam ne yonent bi jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñaan yi nga xam ne yonent bi jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallam bis bu ne mu toog ci barab azkar yooyee ak ñaan yooyee jóge ci yonent bi mu ci jaar di ci di ci wax ak yàlla subhanahu wa taala di ko ca kañ di ko ci sabbal di ko tudd loolu moo dëppoog li li yàlla wax uzkurullaha zikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila waaw kon boog zikrullah toogaay boo toog di zikrullah ak di ko ñaan ak di wax ak yàlla yàlla daa bëgg nuy wax ak moom mu waaw loolu munta ñàkk nga wutul ko barab wutul ko dem waxtu woo koy def su fekkee ci suba gi la baax na suba gi baax na bu dee ci njël ba tey baax na waaye nag fexeel wutul ko waxtu woo xam ne bu ñëwee nga def ko te bañ ko sàggane bu ko defee zikru yooyu da nga ci moytu rek bidda te tënku ci ci sunna sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam lu demee ne adkaar wala adiya yi nga xam ne yonent bi joxe na ko la ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir mu nga wala lu demee ne subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim maa lu demee ne xasbuna allah wa ni'mal wakil maa lu demee ne laa xawla wala quwata illa billah wala yeneen yu dul yooyu wala mu wax istigfaar ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp itam nga fexe ba jaarale ko ca yoonu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag faw gis bi tam li toogal yàlla faw ngay def ay azkar faw ngay jël ay daawaat di ko ñaan subaa ngoon guddeeg bëccëg faw ngay wax ak yàlla jullit bi dafa war di toog di wax ak yàlla ci bopp ak ay mbiram ñaan yi nga tànn ko ci alquran ak sunna mu ngoog munaajaat yi nga tànn ko ci alquran ak sunna ak ci ataayibul kalaam yi nga xam ne jóge na ci asalafu saalih radiallahu anhu bu ko defee boo toog ak yàlla boo toog ak yàlla ba dikk ba istighfar ba saa saa nabi ba dikk boo toog ak yàlla ba ñaan boo agsee ci di déeyoog yàlla wala ngay ñaan na nga sàmmoon teg teggin yi di ñëw bu dëkk ba mooy say bàkkaar na nga ko nangu bul toogal yàlla di ko jéem a nëbb wax ko li nga def ne ko yaa rabbi ma def nangam te boo koy wax na nga tiit na nga tiit te boo fa jógee na nga fexe ba bu ko defaat kilifa bu toll na yàlla sang bu toll na yàlla kenn du ko tooñ waaye nag tooñ nga ba noppi jaar jaar ci bàkkaan wax ko te itam na nga jooy ngir yàlla boo tuddee bàkkaar yooyee lépp lu la ci mën a jooyloo na nga ko jooy na nga jooy ngir ragal koo ragal yàlla ndax tooñ yi nga ko tooñ jooy ngir ci góotiit ndax xam nga ne yow sa bàkkaar bi mën na laa yóbbu safara te xam ko fooy mujj ak moom te itam soo toog ak yàlla subhanahu wa taala yàlla dafa bëgg ko ko woon ak toroxlu ak mag te deel tuub tuubalee yàlla bu kenn toog fi kanamu yàlla mel ne ku toog sa moroom ku dem fi kanamu yàlla di wax ak moom na nga yóbbaale ak mokk wax na ne yonent yàlla Moussa xam nga yonent yàlla Moussa daan faral di toog ak yàlla yàlla di wax ak moom yàlla bari woon na lool ay rendez-vous yu mu koy jox di wax ak moom ci tuuri Sina benn bis nag ñu ne ñu ne yàlla Moussa dane sa borom yàlla damaa bëgg a xam lu lu muy essiyaale mburu mburu muy essiyaale ak sëriñ muy essiyaale maanaam ku seeti koo fonk ba sa kilifa dooy bale sëriñ ja sa borom yàlla ne ko ah loo indaale sa pay bi day lépp am na fi ba mu des ak mokk ak njaame ak wàcc andil ma lool boo ñëwee daal doon na lu jaam mokkal rub wàccal torox lu lépp am na fa bëri ak torox barab bu ne nag la fa manqué rek moo fa neex mu nga kon boog yow boo toogee ak yàlla subhanahu wa taala na nga toroxlu na nga xam ne jaam nga na nga mokk rumbux alima al sayd ibnu alqayim al jawziya mi ngi nett li wax ju neex ju nit yàlla yi di di jéyoog yàlla subhanahu wa taala ci munaajaat mu ne wax ji yaaka neex asaluka bi izzika wa zulli ki toog ak yàlla di wax ak moom di munaajaat di ko ñaan ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa tedd gi nga tedd ak sama torox gi ma torox illaa rahamtani yàlla nag ma yërëm yàlla nag ma yërëm maa ngi lay ñaan ci sa tedd gi nga tedd ak sama torox gi ma torox yàlla nag ma yërëm maa ngi lay ñaan asaluka bi quwatika wa doffi wa bi ginaaka anni wa faqri ilayka hadihi naasiyati alkaadibatu alxaati'atu bayna yadayka abiduka siwaaya kasiir لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه إلى من borom yàlla lay waxal di maa nit yàlla noonu la ñuy def dañuy toog ci seenub sajaada baa seenub der baa may nekk ñoom rek Ibnu Qayyim nee na nag wax yooyu daal wax ji moom ne bokk na ci wax yi ko ci yéem lool neex ko lool te di wax borom bi tabaraka wa taala di ko wax maa ngi lay ñaan yow sama borom yàlla ci sa tedd gi nga tedd ak sama torox gi ma torox yàlla nag ma yërëm maa ngi lay ñaan yow sama borom yàlla ci sa kattan gi nga am ak sama lompañ gi yàlla nag ma yërëm yow sama borom yàlla ci sa doylu gi nga doylu wëlis ma man munu ma laa jëriñ dara doye woo ma dara mënalu ma la dara te man nag soxlaa soxlaa loo ma dara te man nag mu soxlaa la lépp maa ngi lay ñaan ci loolu yi sama naafiya baa ngi nii naafiya mooy kawaru jëf xam nga ne nit ki boo téye ci kawaru jéem jekku nga ko bu baax a baax sama naafiya maanaam jox naa sama bopp maa ngi nii sama naafiya bu man bee fen sama naafiya bu man bee tooñ mën a def bàkkaar maa ngi nii sa kanam am ngay jaam yu bari yu bokkut ak man te man nag yow dong laa amee sama buur aw ma beneen buur bu dul yow aw ma fenn fu ma mën a wéeru mbaa fenn fu ma la mën a làqu lu dul ci yow tooñ naa la te mënu ma la làqu fenn ci yow rek laa mën a ñëw maa ngi lay ñaan ñaanu miskin ñaanu ku loru ku ñàkk maa ngi toroxlu ci yow di la ñaan ñaanu ku toroxlu ku torox maa ngi lay ñaan ñaanu ku ragal ku loru maa ngi lay ñaan ñaanu koo xam ne kii aw loosam tëdd na ci suuf bakkanam toroxlu na ñaanu koo xam ne kii ay bëtam ngay gën a rongooñ ab xolom wàcc na bu baax dégg leen ji wax koy wax ak borom bi tabaraka wa taala ndekete kenn ku nekk ci ñun daa war di toog ak yàlla di wax ak moom kon boog mbokki juut yi kenn ku nekk ci ñun nay toog ak yàlla tey nay wax ak yàlla subhanahu wa taala maa da ngeen ci ni maa da ngeen ci ni dee leen toog ak yàlla di wax ak moom dee leen wax ak moom ñetti xeeti wax yu bokk adkaar te mooy yonent bi ne baat sàngam ak baat sàngam yàlla bëgg na ko dee leen ko wax wala di leen wax nangam wala yu mel noonu ak du'a du'a mooy ñaan boo xam ne gi yonent bi joxe na ko sallallahu alayhi wa sallam de leen ko ñaan te ñaan yi baax nañu wala sax ñaan goo xam ne gi yow yaa ko soxla da koo ñaan yàlla salaa mu ñu war a dégg wala la pël la tubaab la yàlla dégg la la mu yëpp ak munaajaat munaajaat mooy nga toog ak yàlla di wax ak yàlla ci màggam ak sa torox ci moom gum la moom ak say tooñ yoo koy tooñ yooyu yëpp dañ cee war di wax ak yàlla subhanahu wa taala su ko defee jullit bu nekk war naa mokkal ci adkaar yi nga xam ne moo ñëw ci sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne da koy wax waxee fu mu toll waaye kat nag bu fekkee ne bii danoo bëgg a dund kitaab ak sunna te duñu fonk zikrullah loolu sotti danoo bëgg a dund kitaab ak sunna buñ gisee ku yor course di toj toj toj ni nitu biddaa la bisimilah mën naa doon nitu biddaa waaye nun tam mën nanoo sàggane loo xam ne fonkal bu mag islam te muy zikrullah te fekk yëgunu ko loolu faaw nu bàyyi ci xel bu baax a baax kenn ku nekk ci nun daa war a mokkal ci al azkar al muqayyad azkar muqayyada mooy zikri yi nga xam ne yonent bi moo ko wutal jamono wala mu wutal ko xew-xew ne bu nangam xewee nees zikri nangam nees wax nangam tudd yàlla sàngam nees ko wax bu nangam xewee bu subaa wax leen lii bu ngoonee wax leen lii booy génn sa kër waxal lii booy dem jàkka ja waxal lii booy génn waxal lii ba mu jeex booy sol sa mbubb waxal lii azkar yooyu yëpp dañ cee war a mokkal ab jumla bu am solo taxoo ko di ko wax di ko jëfe te borom xam-xam yi bind nañ ci ay téere yu bare bare bare bare ci jamono yu njëkk yi ak yu mujj yi bu fekkee da ngeen cee bëgg ay ay ñaan yu bare bari ay ñaan xajul ci jotaay yu mel ni waaye mën ngeen dem ci téere yi nga xam ne bind nañ ko ci mën ngeen dem ci alkalimu tayyib bo bo ibn taymiya mën ngeen dem ci almasurat bu asnul banna maa ngi ne ci addu'a al mustajab bu bu bu bu Ahmad ibn Abdul Jawad Ahmad Abdul Jawad wala azkar wa da'awat mubarakat Ahmad ibn Muhammad Tahoun wala azkar ak ad'iya nabawiya Abu Bakr Jabir al-Jazairi wala du'a rasul Abdullah Hajjaj mu ngoog ak al wird Mustafa al Muxtar ak yu demee noonu maanaam téere yi nga xam ne ñooy jàngale ñaan te def ay téere yu ndaw yoo xam ne téere boo ci téere boo ci yëkkati xaj na ci sa sa poos te li yonent bi wax ci ay ñaan baax na ci yoo xam ne nekk na ci tey dem borom xam-xam yi segg nañ ko ba ay téere yu wér ay ñaan yu wér a wér ndax ahadis yi am na ci wér ak yu ak ak yu wérul waaye borom xam-xam yi segg lañ ca segg ba mu doon yu wér yu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee jil bu ne war na ci am ab téere ah yor di ko ñaan te téere bi mu jéem a xam la ke ne ñaan nga ci ne ñaani suba ak ngoon mu di ko saxoo waaw ñaani sol mbubb ak sumi mbubb ñaani dugg ci duus ak génn ñaani génn pour dem jàkka ja ak génn pour liggéeyi ñaani dugg jàkka ak génn ci jàkka ñaani tukki ñaani yéeg ci watal ak mu ngoog yooyu yëpp nga xam ko di ko jëfandikoo yàlla ci yàlla dimbali dafa defee zikr moom itam bu fekkee doon na lu war nu ma ko taxoo ñu ko def it war danoo fàttaliku ne lay tax mu am njëriñ lay tax nu mën caa jëriñu mooy mu dëppoog ndigalal yàlla subhanahu wa taala zikrullah ginnaaw ñii la foore xanaa dañ ko war a fonk ci di ko def de ah ndax dañ ko war a jëlee fu ne ndax dañ ko jëlee fu ne te yéen di ngeen a bëri ay xeet zikrullah lool lool lool lool zikrullah yi dañoo bëri lool dégg naa sax léegi rajo dunia day jàngale zikrullah ah am bàyyi nañ ko léegi ah ismu sàngam ko weer nangam yoon xawma lan lan lan lan dof de dof de dof jaar ci ndigal sayidna muhammad albaabu mooy sayidna muhammad ki joxe ndigal mooy yàlla subhanahu wa taala ki mu topplu mooy sayidna muhammad saa sallam koo xam ne kii jaaroo ca yoon wa ki jaarul ci yoon wi xanaa jaar ci mbooy gi mbàkki jullit yi dëgg dëgg yi jawe fu ñu ne ci yoon wi am ci mbooy gi ci mbooy gi jiit yeeg jaan yeeg jàngalaar yi fu ñu ne ci mbooy gi bukki yeeg gaynde yi fu ñu ne ñoo leen ci yoon wi yéen yàlla teetal ba mu ci yoon wi kon bo bu nuy zikrullah faw nu xam ne zikrullah ak lu zikrullah lay tax mu mën caa jëriñu mooy mu dëppook ndigalal yàlla te itam jaar ci yoonu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te itam wuut na lool diggante ñaar ñii kii zikrullah ngir topp yàlla subhanahu wa taala xoolal kii zikrullah ngir topp yàlla subhanahu wa taala kii zikrullah ngir jublu ci jaamu yàlla dong jublu ci leneen wéyal ndigalal yàlla tey da ciy tënku ci yoonu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàqale leen ma diggante kooki ak ka gàddu way ndarem di wër di wër di wër kër sëriñu tareex yi waaw di wër kër sëriñu tareex yi di dajale ay xeet si kër yu ne xeetu si kër bu ne mu dajale ko mu ngoog ay ma ma ma ma ngay woo ay jinne ma ngay woo ay rawaat wala sax ma ngay woo yàlla subhanahu wa taala waaye ma ngi koy woo ci aw woowin woo xam ne yàlla joxu ko ca ndigal sayidna muhammad xamu ko woon sallallahu alayhi wa sallam loolu ñi koy def tey li ci gën a doy waar mooy la tax ñu di ko def du ngir yàlla du ngir yàlla de zikrullah ku koy def te ngir yàlla tax nga di ko def looy te jaar looy te nga jaarale ko ci sunna sayidna muhammad waaye zikrullah boo xam ne bii dégg naa dégg naa am na benn waaye bu duggoon xalwa xaw ma di di di zikkar xaw ma lu mu yor di zikkar di zikkar di zikkar di zikkar ba mu yàgg rek am lu ko feeñu am lu ko feeñu daal ne ne ne ko duut baaraam ci biir bi ne ko sa sa compte bi riba lu liwut rek ci nekk yooyu yëpp teew la cee bañ a fekk zikrullah boo xam ne bi yow yaa ngi zikrullah ana looy zikrullah da nga dugg xalwa ana ko duggal xalwa xanaa fonctionnaire bu détourné kees fonctionnaire moo di tourné kees ñëw ne la sëñ bi man dañuy bëgg a yóbbu kaso kat wax ci wax ci nga ne ko waaw loolu man maa ci ay man loolu bu soobee yàlla sama dénk sa bopp kay man bu neexee dinaa ci taxaw di war xam naa ko te dinaa ko def ah dénkatul yàlla boppam ma ngi koy dénk sëriñu tareex te boo seetlu woon nag sëriñu tareex day mbu mi ni mu woyefe ndeysaan mbaxane mi ni mu woyefe ndeysaan te walaay bu mu woyef du du du ayib du sikk ndax mu mu diis du tagg waaye damaa bëgg a wax ne rek loolu yi mu lay jig bu ko amoon xanaa koy mu jëfandikoo ko ci boppam te moo la gën a bëgg mu diis mu nga ko waaye miskin la li ngay sa poos li ngay wax ak moom lépp lépp lépp lépp boo seetlu woon bët yi bët yi sa poos ay xool li nga xool ba xam ñaata ngay génne te itam faw mu tat la nee day laaj ak weexal nee day laaj ak weexal mu ne waaw waaw danaa ko fanaanoon seet ko mu ne mu ne waaw ah te naa ko yëf yi diis na de yëf yi diis na de faw nga wut deux cent mille francs mbaa cinq cent mille francs xam nga mbir mi liggéey wax dëgg-dëgg ci liggéey un million moo ko war na def yow nag sama waaye nga dinaa la ko wàññi cinq cent mille rek nga may jox nga dem ñàkk fay da bare jënd sa deux cent mille jox ko noo ko dama koy wàññi da nga may dimbali mu lekk sa xaalis dem jël loo xam ne lii kenn jox ko ci ndigal jaar ko foo xam ne lii kenn jox ko ci ndigal fitna dong moo ko cay fekk yooyu itam dañ ñu jàppale naa rawu ci kaso bi moo di lu muy jëriñ loolu xam ngeen ne doon lu am njëriñ kon boog zikrullah day jaar fii yàlla bëgg day jaar fii sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëdd bu dul loolu ku jàdd yoon wa ñi koy jàdd seeni pay mooy li ñuy gis ñun ñëpp ay feebar yu dul jeex feebar yi ndof feebar yi ndof feebaru ñàkk zikrullah boo xam ne bi da nga koy jàddale yoo xam ne sunna di di di jël ay turi jinne di werd di jël ay tur yàlla yoo xam ne yàlla joxe wuti ndigal noonu di werd yàgg naa doxloo nit waaw yàgg naa teg nit ak ñàkk ñàkk gu gu méttee méttee métti mun dafa ba am dara tey ndekete ak ñàkk lay jéem a jën ci ci li muy def ndekete li muy def moo ko jox ak ñàkk ba tey léeg-léeg nga gis sëriñ pedeex boo xam ne day wër rek du toog mun ta toog mun ta fexe ba toog te fekk li mu yor di ko zikkar moo ko teg mu nga daa ñëpp ci ndigal daa jàdd yoon wi ne ci mbooy gi ba dajee gaynde gay gay mu nga gaynde nga fàtte ko muy wër rek am na ko torox torox gu ma sëkk taxawaalu gu sax dakk si dëkk dëkk yeeg réew yi yàqute ci wàllu jikko nag yàqu mën a fen mën a tappale bu fekkee ne gis na ko yor xaalis mu ne ko man soo ma joxee cinq cent mille ma defal la ko cinq millions ñu jox ko cinq cent mille du yaakaar cinq millions xoola ku juba di ka koy yër cinq cent mille yi jaamur du jox ko ko mu koy mu koy mu koy jéem a soppi cinq cent mille te day fen waa tan naan ci yàlla day fen cinq cent mille yooyu la bëgg a fab lekki kooke dana gën a mi lekk lew na xam ngeen ne lewut ñu ne ko ñu jàpp ko ne ko rawu ci kaso bi mokk ko jox cinq cent mille loolu lépp fitna yi jàdd ndigal sayidina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla musal yàqute ci wàllu jikko gu mat sëkk mën a fen mën a rambaaj mën a boolee bokk bu gisee nit ne ko yow sa doom baay ji dalaa bañ waaye boo la bindalee téere su ma la bindalee saafara nekk ni nakk ne sàmbata door a jaay fen rek fen rek yàqu di yàq société bi loolu dañ ci war a bàyyi xel moo tax ba bu ñuy zikrullah faw nu sàmmonteeg aadaabu zikrillah te ba ca jiitu mooy mutabaqatul kitaabi wa sunna yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad rawahu muslim yonent bi nee képp ku jëf-jëf joo xam ne ji dëpp wut ak li ma indi daf la koy delloo mu ngo du baax kon nag mutabaqatul kitaabi wa sunna mooy li ngay zikri ne dëppoog alquran ak sunna loolu li ngeen ci bàyyi xel bu leen kenn nax Sénégal daa bëgg daa daa yomb nax képp ku ci yoroon aw tur rawaan baa tur jinne képp ku ci yoroon aw tur woo xam ne wii daal wóolu ko daal ndax lii seen dama xam ne ko wax ne ko ne teg ci suuf te dem leen ci teri sunna yi ngeen jàng di Quran ko yonte bi daan des ak nu mu ko jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ñaareel ba mooy ixlaasu niyati wal qasdi lillah booy zikrullah na nga ko def ngir yàlla ne yéen a ja sell ngir yàlla zikrullah ngir wut adduna zikrullah ngir wut bayra zikrullah ngir yëkkatiku yooyu yépp ay caaxaan la zikrullah da nga koy def ngir yàlla ba ba lépp fekk la ca ci xéewal yàlla yi la ca fekk nga xéewloo ko zikrullah boo ko dee def xéewal gunee ngi ñëw incha allah ndeen jaar gi ci kitaab ak sunna kii zikrullah te jaar ci ndigalal yàlla jaar ko ci njubug sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéewal gunee ngi ñëw la ca fekk nag fekk taxu la woon a jóg waaye kii zikrullah te fekk moom addunaa ko tax a jóg bayra lay wut wërsëg lay wut mbooloo lay wut loolu kat yàllaa koy maye zikrullah du ko may yàllaa koy maye te yàlla yaa ngi ko mën a ana ci moom ci jaar ci ndigalam ba mu fekk la loolu la yàlla ci yàlla dimbali ñetteel bi aadaa bi mooy sa xol na teew boo dee zikrullah bul yor bul bul yor sa kur mbaa nga sa baaraam di wax rek te fekk li ngay wax ci làmmiñ yu xel mi néew ci xol bi teewul loolu baaxul yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla du nangu yàlla soxlawul kay ñaan wala kay dëpp te fekk li ngay wax xol ba néew ci kon ba xol bi faw mu teewlu yàlla subhanahu wa taala faw itam nga wala sa ñàkk ak sa torox ak sa néew doole ak sa njaabe ci kanam yàlla subhanahu wa taala bu ko defee booy zikrullah zikri bi li baat yi ngay wax na na jib jib bu digg doomu bañ a suufe ba ëpp bañ a kawe ba ëpp wala tajhar bi salatika wala tuxaafit biha wabtaghi bayna dalika sabila yàlla nee na say jàng sa njàngum alquran ci julli ak sa mu nga nee na bu ko biral ba mu ëpp tey itam bu ko suufe ba mu ëpp na na digg doomu bu ko defee ud'u rabbakum tabarruan wa xufya innahu la yuhibbu almu'tadin su fee mooy maanaam nga wax ko ndànk bañ koo bañ koo xumbal ñeenteel bi mooy kii zikrullah na sàmmanteeg di lekk lu lew ma ko jullit yi zikrullah bu fekkee yaa ngi koy def te li nga lekk ba toog di zikrullah lewut la ngay zikr yàlla du ko nangu mu nga ndax te Saad ibn Abi Waqqas daa moo sana wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah ñaanal ma ma am lijaaba ndax amin lijaaba lijaaba mooy lu ma ñaan yàlla nangu ko wala boog sama ñaan li ci ëpp yàlla nangu ko yonent bi da ko ne yaa saad atit matamaka takun mustajaba daawa walladi nafsu muhammadin bi yadihi inna arrajula la yaqzifu alluqmata alharama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arbaina yawman wa ayuma abdin nabata laxmuhu min alsufti walriba fannaaru awlaa bi yonent bi daa wax saad ne ko saad li ngay lekk na lew soo bëggee yàlla di nangu say ñaan maa ngi lay gidal ci buur bi nga xam ne bakkanub Muhammad ci loxoom la ne nit dina dugal ci biiram benn cib benn cibub ñam boo xam ne daa lewut ñu teg ci ñeen fukki guddi lu mu jaamu kenn du ko nangu lu mu ñaan kenn du ko nangu waaw te wépp bépp jaam boo xam ne daa sax aw yàpp ci yaramam mu jóge ci ñam wu xaraam wala mu jóge ci riba yàpp boobee safaraa ci gën a yey mbokk jullit yi nit ki li muy lekk na ko set xoolaleen ma rek suñu mbokk tariix yooyu di di di soppib xaalis soppib xaalis loolu lew na nga nga nga lekk bëri gëriix wala nit ñëw akum tiitam akum njàqareem ko léegi nga delloo ko ci yàlla xamal ko ne ko yàlla mooy al mu'ti al maani la mu'ti li ma manaata wala maani li ma atin xamal ko loolu delloo ko ci yàlla ko léegi nga teete ko nga ne ko man li li li ki war maa ko yese dinaa ci taxaw naa ci taxaw bismillah moo ci taxawee laaj ko ñaar fukki junni baa fanweeri junni ci aajo joo xam ne ci yoo xam ne mënoo koo faj yow da ngaa faj say aajo sax yow say aajo bopp mënoo koo faj bi yow sa jabar nga feebar mënoo loo ko dara sa doom deene mënoo ca dara yaa ngi yor ay bor yow suñu tadex bi yaa ngi yor ay bor yow war a fay fayoo boo demee kër nga luyee sax joxal ko liage bi amoo dépense boo joxe naa dinaa faj keneen bala nga faj aajo keneen fay sa aajo waaw li nga laaj ko ci aaj yoo xam ne mënoo koo faj xamoo fu muy fajoo nga lekk ci fukki junni lew na lewul nga lekk liw toog naan da nga ñaan yàlla li fukki junni yi nga yor li ci ñëgu benn tip li ci ñëgu benn tip nga dugal ko ci sa biir sayidina Muhammad nee na seet ñeen fukki guddi loo ñaan kenn du ko nangu xam ngeen loolu musiba la yàlla incha allah musal kon nag kii zikr na fexe ba li muy lekk lew su bëggee jot ci barakaatu zikr su bëggee jot ci manaafiu zikr juróomeel bi mooy bu fekkee mën naa jublu penku ci yenn ci azkar na jublu penku koo xam ne ki dafa toog jalsatu zikr ma allah ca këram muy jël sa jotaayu zikr boobu muy def ak yàlla subhanahu wa taala gis bu ne mën naa toog jublu penku azkar yi nga xam ne nag moom laa jub jublu penku ndax dafa dafa am ay barab yu ñu koy defee te barab yi boo ca tolloo mën naa bu jublu penku loolu taxut ñuy wax bu ko defee bu dee da ngay ñaan nag nga boole ca yëkkati say loxo mu nga booy ñaan nga yëkkati loxo ànd ak soxlu mu nga boo ñaanee ba àggal ndax boo ñaanee bàggal ndax da ngay tëblu ci loxo yi raay am na ngay wàcce doo raay borom xam-xam yi danañ cee warante li siiw lool si jullit ñi mooy raay waaye borom xam-xam yi nee nañu xadis bi woon ne da ngay raay sa kanam nee nañu xadis boobu dafa nekk daif mu ngoog ba tax sax yenn borom xam-xam yi wax ne raay kenn nga ko influé ko xamul dara mu ngoog mu nekk xilaaf bay ulama waaye wax ju ma neex la ci imam Aboubacar Jaabir Jizaari wax ci ar-Rasaa'il Jizaari nee na. nuqta boobu daal bokk na ci miqaat yi nga xam ne bu ci jullit ñi mën na na baalante moom dana ko dana ko neex lool boo fekkee nekk daal sa mbokkum jullit mu ñu ñaan baagal mu mu raay kee moom bañ a raay ñoom ñëpp kenn ku nekk xajoo morom ma te te yaatal morom ma te xam ne diine yaatu leen tan yéen ci yàlla boole dimbali mu nga bu ko defee bu fekkee da ngay ñaan nga tànn waxtu yi nga xam ne waxtu yu nangu ñaan la am na ay waxtu yu gën a yaakaar ci nangu ñaan waxtu yooye ak bis yooye nga fexe ba xam leen bokk na ci bisu arafa bisu arafa bis bu ñu yaakaar nangu ñaan la bokk na ci weeru koor weeru koor weer yu lépp weeru ñaan la weeru nangu ñaan la bokk na ci bisu ajjuma bisu ajjuma bisu nangu ñaan la bokk na ci bu ñu xaajee guddi gi ñetti xaaj bu ñaar ñi demee ba benn bi des ci ku am itte ju la ñor bul dem ci tariya bul seeti abdel sure bul dem fenn ida saalaka wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani yàlla nee na sama jaam ñi suñ ma la laajee yow Muhammad ne leen ku leen jege la danaa wuyu woote aji woo su ma woowee kon ba ko wool yàlla jàppal ba sel nga bàyyi ba quatre heures du matin jot nga bàyyi ba quatre heures demi cinq heures jot nga jóg jàpp ba sel kabbar julli yàlla ñaari rakka boo sëlmalee nga kañ ko moom yàlla kañ ko tagg ko màggal ko wax ay melokaanam tuubal ko jéggalu say bàkkaar sant ko tey xew yi ma defal jullil ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo neppee ñaan sa soxla waaw soo neppee ñaan sa soxla doo neppee tëjawaat ñaan nga ci saatu ak nabi sallallahu alayhi wa sallam nga teet ba xam saabar mel lu mu lay defal bu fekkee ne bi soxla sa dalaa ñor lool te aju ci ay jamono yu yàgg da nga fexe ba répété loolu ñaar yoon ñetti yoon nga seet ba xam loolu moo gën dem ñu lay nax bu ko defee kon waxtu ñaan yi waxtu yàlla noonu bi ci gën mooy ñël bu njëkk mu ngoog bu ñu xaajee guddi gi ñetti xaaj ba ñaari weesu mas benn bi naka noonu boo dee julli di la sujootee foofa yonent bi nee na fi nit gën a jegee yàlla mooy fi mu sujoote ngeen góorgóorlu ci ñaan ndax mën naa am yàlla nangul leen naka noonu tam bu dee taw naka noonu tam bu dee taw naka noonu tam bu ñu noddee diggante nodd ak liqaam barab bu ñu yaakaar nu mu ñaan la naka noonu tam bu fekkee ne bi yéefar yi ak jullit yi dañoo tampaloo di jihaad jamono yi ñuy tampaloo waxtu bu ñu yaakaar nangu ñaan la naka noonu tam boo demee ba tiit boo ragalee tiit jàq ah buntu nangu ñaan a ngoog fexeel ba bul bokkaale fexeel ba xam fi nga war a jëm xamal kiy nangu ñaan xamal kiy maye xamal ki yor def ak dindi xamal ki nga xam ne ku mu jox kenn du la xañ ku mu xañ kenn du la jox jublul ci moom wallahi booy def di gis yàlla ci yàlla dimbali bu ko defee booy ñaan comme ni ko waxee léegi nga tàmbale ci sant yàlla màggal ko tagg ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax li abu daawuda solo ci hadis boo xam ne bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam dafa gisoon benn waay dafa yonent bi dafa dafa an fudalati ibnu ubaydin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو, لغي أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعض بما يشاء يعني دا سين دا سين دا دق بنا واي موي ñaan xam naa waa ji daa xamul teg ji ni ñaan daa toog yàlla daa tàmbali yàlla yàlla na nga may nangam yàlla na nga may nangam yàlla na nga may nangam xam ngeen ne kooku jaarul ci yoon yi ñu waxoon léegi yonent bi ne kii dee gaawal na loolu bar na fi yonent bi nag ba waa ji noppee benn yonent bi wax na waa ji wala wax na keneen ne ko daal kenn ci yéen bu jógee di ñaan bu bu jullee bay ñaan bala moo tàmbali ñaan gi na tàmbalee ci màggal yàlla subhanahu wa taala màggal yàlla tagg ko tagg ko julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam boo màggalee yàlla tagg ko julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag nga ñaan lu la soob nga ñaan gannaaw bi la soob loolu la loolu la loolu la yonent bi jàngal xeet bi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetteel bi mooy li ngay ñaan bu mu doon lu xaraama ñaan bul ñaan nit ngir mu dee bul ñaanal nit ngir mu ñàkk place am bul ñaan lenn lu bon bul ñaan luy dog ak bokk wala lu yàqu mbokk juróom ay juróom-ñeente bi mooy boo dee ñaan bul yàkkamti ñaan naa yàlla mayuma déet bu def loolu boo dee ñaan teelul rek te boo boo ñaanee ñaan gi ñëwagul bul naagu xëy na mi ngi ñëw te yonent bi nee na yàlla dafa tabe lool yonent bi nee na yàlla ku tabe la ku am kersa nee na yàlla yaas na ab jaaram bi ko gëm yaakaar ko wéetal ko tàllal ñaar loxoom yi ne ko yaa rabbi ñaan ba àggal te yàlla tegal lu ko ca dara ca loxoom ya yàlla ak tabam weesu na ko saa boo tàllalee yàlla sa loxo ñaan faw yàlla teg ci dara mën naa am mu teg ca lan ko doon ñaan maye la ko nan ko ko ñaane woon tamaam nga teg si ba nga xam ne yow ma yàlla daanu ko te loolu bari na ci jullit ñi nga xam ne ñu ngi koy dund wala nag yàlla xam ne lii ngay ñaan gënul ci yow waaw gënul ci yow wala soobu ko waaye ndax mu bàyyi loxoy neen de da lay may leneen yàlla tabee tabee tabee tabe ba boo ko ñaanee ab rajo te yàlla xam ne ab rajo boo ko amee baaxul ci yow bu la joxul rajo bi dañu yëkkati may defet bi jox la bu la joxul li jox la leneen waaye du la bàyyi mukk loxoy neen moo nga kon boo boo ñaanee ñaan gi yéex a nangu bu ne ñaan naa yàlla nanguwuma continuer di ñaan rek bu fekkee li nga doon ñaan daa am waxtu woo xam ne ci la war a sotti waxtu wu ñëw ba passé ba nga xam ne ñaan gi raw na te gisoo fu mu sottee jàppal ne loola amul wóolute ci yàlla jàppal ne daa gënul ci yow wala daa sëbul sama borom yàlla yàlla lu ko sëbul du du am nag wax ma rek ana koy jaam bi ci yéen ñaar ana ana koy buur bi ak koy jaam bi ah yow yaay jaam bi di yàllaay buur bi loo bëgg mu am ku ko yoyoo waaye ma nag ku yoyoo loo bëgg mu am buur bi ana ku yoyoo say bëgg-bëgg am te yu am ak yu amut jaam bi nangul sag njaam boo soxlaa dara ñaan ko yàlla boo jógee saraf lul boo saraf